Mhm. Hmm? ah doy na war en tout cas alors Thioune euh, maa ngi lay junj léegi dafa am benn communiqué <coughs> communiqué de presse boo xam ni euh, moonu daal di euh, dab fii ci plateau bi bàyyi ko fële ca parquet du procureur de la République muy euh, génn bu àdduna ki nga xam ne nag moo di Mamadou Moustapha Ba daanaka semaine bi euh, su ma juumalee la la la affaire bi am. Mm-hmm. ba su ma juumalee sax suba na ko war jébbal boromam fële sa sa ñor alors dafa am communiqué de presse boo xam ne euh, moo daal di moo dab léegi léegi le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. a été informé du décès survenu en France monsieur euh, Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget. Les renseignements reçus sur les circonstances du décès des éléments qui justifient euh, que des diligences soient menées euh, en vue de déterminer les causes de la mort. Conformément aux dispositions de l'article 66 du Code de procédure pénale, une enquête pour rechercher les causes de la mort a été euh, a été ouverte et à cet effet, euh, une autopsie a mu nekk communiqué bi nga xam ne moom daal di dab léegi di ñu xamal ni carrément kii di euh, procureur euh, daal nay euh, joxe li nga xam nag moo di ndigal nu def li nga xam nag moo di autopsie ci anam bi nga xam ni moom la Moustapha Mamadou Moustapha Ba mi nekkoon ancien ministre des finances et du budget daal di génnee li nga xam ne nag moo di àdduna je pense bien que fan yële rek rumeur boobu commencé woon. di ñu si bëri commencé woon nañu di di njort est-ce que duñ def euh, li nga xam ne nag moo di ab autopsie nan nga mën euh, jàngatee wala lan mooy doon sa réaction ci communiqué bi nga xam ni euh, moo bàyyi ko fële ca parc bu Dakar. waaw xam nga man déjà man mii di wax ak yow. Mhm. suba bokkoon naa ci ñu war a dem. Nioro waaw parce que man Moustapha Ba bokk na ci sénégalais yoo xamante ni dama sopp seeni xam-xam man man xam-xam moo may séduire mm-hmm. man sagesse moo may séduire du way leneen te ma gis ko ci moom ma bugg ko lool sax mais j'assume ma bëgg ko lool moo tax décès bi daf ma choqué mm-hmm. choqué bu ma choqué mooy bi mooy su ma jumulee quatre décès yoo xamante bu ma màggee ba léegi daf may affecté kat alors bu mu amee dégg naa euh, li nga wax ni sànq comme quoi mbir mi am nañu am nañu ko tuddee noonu louche na parce que nit bu deewee moom euh, am na yoo xamante ni mënoo ko ci wax donte mënoo tëj sa gém nokk nga ne duma ko dégg mhm. waaw di ko dégg Euh, louche na dañu war a xool parce que la mort est suspecte wala circonstance mbir mu amee il nu xoolaat ko loolu ok yoon Sénégal dafa wax ne bu nit deewee ci yenn anami yi kenn waru ko suul lu dul kilifa yoon bi moo wax ne nañ ko suul bu joxee ut lu ñuy tuddee pour ñu am permis d'inhumation permis d'inhumer permis d'inhumer Euh, la preuve kon Mamadou Moustapha mii bu fekkente ni defuñu autopsie bi euh, démb tey fii ba suba. Mhm. kon duñu ko denc suba comme heure buñ ko prévoir woon wala képp ku ko denc te defuñu autopsie. Mhm. yoon dina la daan yow finalement da ngay jóge ci dëj dëj ngay nekk. Mhm. jóge ci waaye après prison ngay yendu parce que yoon da koy tere. nga denc nit dañu war a def autopsie ñu wax la ko nga dem denc ko loolu délit la léegi nag que yoon moo ne nañu ordonné enquête pour ñu déterminer les circonstances ayant conduit à ce rappel à Dieu de Maodo Moustapha Ba uh-huh. pour xoolee ce que la ou bien loolu justice bi Sénégal bu ko am na sañ-sañ bi mu def ko léegi nañ toog xaar sañ-sañ bi parce que heure boo waxee heure boo posé question d'interrogation ci benn fait c'est parce que dafa am loo ci sikki sàkk du rek wala am nga ci loo ciy njort léegi loolu nga ciy njort ñun man xawma en tout cas te ñu bëri peut-être xamuñu mais dès l'instant xel nga ci ñaar kon am na nga probablement lu ci mën a war a mën a nekk léegi loolu l'enquête moo koy déterminer mhm. parce que l'enquête mooy moo mooy jur autopsie autopsie ñi war a def liggéey boobu ñooñu dinañ joxe le résultat de l'autopsie mhm. et dans ce cas si le résultat tombe nous autres Sénégalais on aura l'occasion d'en faire nos commentaires mhm. et d'en faire notre lecture et loolu je pense que euh, comme moo ko waxee ci subu Sénégal moo ko ordonné nañ toog xaar alors comme ni nga ko euh, junjee nañ toog xaar du ñàkk rek euh, euh, bépp xibaar boo xam ni jotoon ko daal di amaat ci boobule autopsie di ngeen si dikkaat pour rek gën koo yaatal alors Thioune dañuy ñëw ci beneen dossier muy arrestation ki nga xam ne nag moo di colonel Cheikh Sarr.